Adama yow lan nga ñu mën a denc dénk ci ki nga xam ne nag moom mooy euh, Omar nekkoon euh, seen xarit. waaw ñun moom defe naa bu ñu fi toogoon di wax si Omar moom gëm naa ne ko même bu dee fii la dëkk seen waa kër mënuñu gën a xam. ndax ñu ñëw dëkkoon ak moom. néegam dama daan génn sama néeg ñu nekk néegam man Kaolack laa nekkoon bi ma amee bac lycée Valdiodio Ndiaye en 2014 si laa quitté Kaolack mun na ñëw fii Dakar nekk suñu waa kër na fii lañ jox ma dama fa doon jàngee bi ma ñëwee damay génn sama néeg nekk néegam ay at bi bi seen waa kër tuxu Tivaouane sama nek la nek man ak mohammed cisse ben rakk ki man ak moom ñoo bokk ben nek ak Omar bi nga defal interview yi rek dañ dan passé quatre personnes nek ci ben ñun ñëpp di waxtaan di defando lepp vraiment mu nek nit ku baax nit ku julité ku bëgg mbokam aussi nek jambar xam nga ñu ngi naan la am na bac ay diplôme ak yëpp mais xeebuloon liggéey parce que daan liggéey sa ay karo mhm. danaan dem di karo di manœuvre di def lepp si ko ndax bañ di dépendre ci nit ki kon koku kon koku mën nañ kon nit ku jambar la won ci aduna lool daal mën nañ ko seede si lan nga lan nga ni uh, ki nga xamne nak uh, Omar dina le remarquer ci lan nga japp ni mom moy uh, li nga xamne nak dina la manquer bu baakha a baax ci sen dundin. limay manquer lu bari la si mom ben mu ne ci compter ci dox mbok dox mbok mo da koy nango def amul mbokam buy xewle do ko fa gis te bu fa ñe buñ la waxe mbokam mo xew nak nan di ndax xewam rek ndax ñooy raxas ñooy yàq ñooy jox ñooy def lépp parce que moom si loolu la ñu loolu daal mun na ne mun si moom torop torop ak ni doon sonné si affaire jàmbur mooy li kii wax léegi lépp loo xam ne war a réparer wala dara ñun seetiteetuñ kenn yëpp si moom la ñuy nangoo sonné si alalu daanaka day yor dara nga gën ko soxla mu jox la ko toog la xool. loolu daal mu ne en tant que xaritam xamoo li ko motiver ci li nga xam ne mooy acte bi mu def nii. non xam nga tey jii nii dañoo ne affaire de xaru léegi pour nit ñi mun la wax exactement fee bi mënuñ koo xam gannaaw yàlla ak moom parce que kii dem dem na pare léegi li nga xam ne moo xew exactement li ko naqari partagé wu ko kenn kon cela veut dire que ñu mënuñ soo wax lu sori daanaka mun na koo naqale mu dund ak moom si biir xolam moom jalo ko mu def yenn mais keneen ku ne la fee bi moo tax mu xaru wax loolu am ñun dañ ko jegewoon nii mardi wax na ñoom wax mardi wax naa moom téléphone démb dama ko woo deux appels en absence jotuma ko ma woo jabaram Adama laa woo ne ko ana saa dama ko doon ziar mu ngi nekk maa ni kër gi di defar ndogu ma dem bi ma demee toog damaa sumeeku toog man ak wax fi ñu liggéey dama sumeeku toog rek Mouhamed Cissé rakam moom woo téléphone fekk kii gis naa deux appels en absence am mais vu que sama loxo dafa japp mané xaar ma pare woko bi rak ji insister woote ma décoré si wax lol dal mom parce que man nag maat lañ mujjee jox téléphone mat wax nañ téléphone waaw mais li waral exactement fièvre mom nit mënu la wax. ñi ngi doon dégg ni euh, amna ba taxal bi nga xamné bayil nako na jabar ji. comme comme que man tay ji ni dama liggéey ñoon bi may ñibisi tombé nak wa sapeur ñew ban ba ex si buntu kër lañ fay génnee di duggal même bu dee am tamit gisumako parce que maa ngi laajte laajte naa ñu ne am na lu mu mais loolu na peut pas justifier les mm-hmm. parce que loo xamante ni lu mu la rek teg waaw d'après li ñu ma expliqué man mm-hmm. non loolu il ne peut pas justifier les faits loolu moom mënuñ see mënuñ see justifier fee ba xam ne lii la lii moo ko dal wala lii la moo ko métti wala dara mën na ne daal ne seytaane ñëw rek waaw man moom man koy qualifier comme que li ñu naan moo ñu ko joxoon yàlla moo ko jëlaat ñun solal lañ mën a baajo a baajo war si leneen mënuñu wax ci ki nga xamne mooy Omar sans wax ki nga xamne nak désormais dénkaane la ci yeen manam suma la déggé ya 3 mois de cela ci la jëlé jabar ji jabar ji nak dan ngeen ñu mëna expliquer par rapport ak li nga xamne nak mom lay dund fani non jabar ji mom jabar ji mom vraiment vrai jambar la vrai jambar la day taxawu jëk ci sur tous les plans du juk sama nek du du daanaka daal mun naa jabar ji jambar la jambar da dëgg dëgg dëgg dëgg té ñun tamit vraiment paré wuñ pour banque suñu loxo ci mom luñ mën ak luñ mënul même bu dee ay jàppale ci waxtaan diko taxaw diko ko seeti jëg lépp parce que jabaram ak sama jabar ak jabaru Omar ñoy ànd lolu mom mom moom mën naa ko mën naa ko seeti si kanam ñëpp gëw mëne ne suñ jabar yi ko bayyi benn place ñun tamit duñ ko bayyi benn place xalaatuñ ko sax segam bi muy dund lañ ko seetaan waxuma la mu génnee aduna suñ gannaaw bi muy dund sax ñun daanuñ bayyi suñ jabar ñom mom da daan dund ak sama jabar lo xam ne man ko dama ñëw sama jabar ne ma dembu Omar ñëw na fi li mo fi bayyi te ma gënon ko baax position fu gënon ko yor liggéey bu baax kooku moom mën naa ko xam maa gënoon a baax liggéey foofu mais n'empêche benn 1000 francs bi mu yor day ñëw jox ko sama jabar toog ma xam ne kii acte moo rafet te du sama jabar man donc jabaru Omar ak ñëpp ñu ñuy ànd ñëpp suñu jabar yi ga ay gaañinam la ñu woon